ay si kagule boy <laughs> bu jeexee rek jeex na mais neex wàcca théâtre wala ngay def série war ngaa jouer rôle boo xam ne boo génnee du la sànq parce que après li nga xam ne moom moo di rôle boobu noonu boo génnee ay njombe rek lañ fiy gis ay taatu nee nag ay photo wu di wane seeni awra ay photo di seeg ay góor ay photo di def lu nekk ñii di mballu ñii di boxoñ lu nekk ngeen di gis. dañ nekk benn dëkk boo xam ni malheureusement concours wane taat la concours simmi silip góor yi di simmi silip di mballu muy jur ay beaucoup de pervers jigéen yi di ko ŋaayi comme ni ko sam benn waxe waxee. asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi. maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Show TV comme ni ñu koy far defee chaque fois gars yi di am naqar ak tiis naqar ak tiis laa ko mën a woowe parce que lii moo raw ñu woo la tàgge la dëj parce que dëj di nga xam ne ndogalu yàlla la yàlla moo choisir jël nit ki mais ay xale yu ndaw ndaw yu tuuti. lenn dugal la ci lu bëgg bës lenn dugalal leen si lu dul réseaux sociaux lenn dugalu leen si lu dul toppandoo ñuy futteeku taatu neen di jouer li nga xam ni moom moo di film porno maam wane leen ni bu fekkee magu ñi amuñu fit def ko wala ñuy toppandoo amuñu fit yegg ca na leen ko baaral quoi mu mat sëkk tantôt ñun Sénégal wax ju bëri rek mais jamais jëf correction amul dara duñu ci fekk mooy maanaam Papa Ndiaye duñu ko def loolu mooy Sénégal nit ku si nekk nag boo jógee di def mu leer lan li ngay def baax na doo ci tàggu kenn parce que koo ci tàggu mu ne la li ngay def nii bu ko def ñu ne la grand bi dafa bëri wax kii dafa soof waaye le monde a évolué ñu ngi ci vingt-et-unième siècle ñu ngi si benn vie moderne loolu la xale di tontu parce que yor nañu ab reewande boo xam ni respecté wuñu sax seeni wayjur sàkkamtuma naa nit ñoo xam ñu ngi si ginnaaw mu nekk nag lu tiis mu nekk loo xam ni wax nañ si ba sonn mais jusqu'à présent musuñu am li nga xam ni moom moo di ndogal yu leer ay règle ay sanction sanction nag du dóor mais ay sanction yoo xam ne nit kooku noonu tey jii nii boo ko jëlaatoon wan ko loolu noonu waxuma la daw rek mais dootu ko defati nii nag ay répercussion la rek sa première vidéo ya ba ñuy kaas ba fi ñenn ñi toogee naan lii sama yëf la maa ko moom ku ma neex laa koy jox ñii di defendre ñii di dal seen kaw polémique jóg wax ji bëri mujjul fenn ñuy demaat gis ay nit yoo xam ni dañuy futeeku taatu nen wala nit ñoo xam ni dañuy tiim góor def wala nii dañuy wan dañuy mën nañu woon seen seen yaram góor nice ma ñu gis ay nit ñoo xam ni dañuy def ay rapport ci série ñu gis ay nit ñoo xam ni dañuy def lu bon sénégalais yi di gis naan ah lii dara nekku ci lii dara nekku ci lii dara nekku si newoon naa leen Sénégal leneen toll moment boo xam ne foo nante sax dafay tuuti di nga joué film boo xam dañ leen won ni carrément lii la ñuy def te ñoo tey loolu moo dal xale yi ñun nag ñun ñooy jël suñu responsabilité ñu ñu nekk benn dëkk boo xam ni lenn rek moo ko dal mooy maanaam feebarub taat Sénégal mooy dëkk bi nga xam ni feebarub taat moo ko jël ba tey jii nii képp koo xam ni bëgg nga siiw bëgg nga nit ñi gis la dangay ngay wane sa taat léegi taat comme ni ko benn mbaam waxe woon. lan mooy taat dangay gis ni ñoo xam day wane taat ñu invité ko télé jox ko bës jox ko doole mu ñëw di exprimer wu ñii léegi ay tata sax lañ koy woowee tata la ñuy woowee kooku noonu parce que dafa wane taatam ñu jël ko teg ko ci télé muy wax di am lu muy yedd Sénégalais yi moom genre nit ñooñu nag bu ñu leen mettre au devant de la scène ngeen yaakaar ne xale yi duñ def laa même chose xale yi nag. ñoom ñoo créé seen série bopp amul benn maison de production bu nekk seen ginnaaw amul benn maison de production bu nekk seen ginnaaw xale yi dara wala lu dul jël seen bopp ne jot na pour ñu defaral seen bopp ñu indi seen i caméra ñu indi seen i bagage woo ay seeni jigéen yu bon ñoo xam ñoom tam dañoo bëgg siiw ñu ñëw leen utiliser leen simmeeku loon taatu neen loolu la rek ba pare nag am sañ-sañ jël vidéo bi di ko partager ñoom ñoom ñoo doon partager vidéo bi jàpp seen téléphone ñoom ñëpp fay ko ku leen woo doo leen jot ku leen woo doo leen jot mais lii du lenn du lu répercussion ñiy pervertir jeunes yi ba leen di naan ñii ngi ñëw pour pervertir jeunes yi yàgg nañ leen ko wax perversion mu ngi dugg biir Sénégal xale yi dinañ gën a yàqu amatul sécurité parents yi lu ñu yar yar yar yar yar parent yi lu ñu yar yar yar yar yar laa la wax de télé yi ñëw yàqu ko parent yi lu ñuy yar yar yar yar yenn maison de production yi ñëw yàqu ko TikTok Instagram toog di seetaan nit koo xam ne day saaga suba ba ngoon ngeen di kontaan parce que mu ngi saaga yéen ñëpp ngeen continuer di ko suivre toog di seetaan ay nit yoo xam ne dañuy futteeku taatu neen ngeen di toog ay lii joor ñëpp di ko suivre ñëpp di dem abone loolu mooy Sénégal léegi. mooy maanaam dañuy laaj est-ce que kilifa yu mag nag ñooy dem di seetaan ñooñu kilifa yu mag laa la wax ñi xam ñoom ñoo waroon changer dëkk bi ñoom ñooy dem di seetaan loolu mu nekk affaire boo xam ne dañ koy tiis ngeen di laaj ndax Sénégal la moo tax mag ju baax yi di dem ngeen di laaj Sénégal la moo tax xale yi di dee dee bu gaaw nii ngeen di laaj Sénégal lan moo tax feebar bi ñëw jékki-jékki waat duggaat dëkk si dëkk yëpp feebar yaa ngi dem ba mu def Sénégal ngeen di laaj Sénégal lan moo tax mënul avancer dëkk nan lay avancer su fekkee mentalité yi si taat lañ ko fixé dëkk nan lay avancer bu fekkee ni mentalité yi si affaire de porno lañ ko fixé dëkk nan lay avancer bu fekkee ni mag ñi ñoo gën a bon xale yi dëkk nan lay avancer bu fekkee xale yi dañuy def lu leen neex ba pare kenn du si mën dara loolu mooy Sénégal si wax rek lañ nekk chaque fois dinañ wax dinañu wax. ba keroog yàlla di indi li nga xam ni moom moo di ab saafara si lii yeneen xale yi ngi ñëw lii pour yéen dafa garaaw wax naa leen ko chaque fois garaawul de yeneen yi ngi gën a ñëw chaque fois da ngeen gën a gis lu gën a bët te doo leen si mën dara ndax lan parce que amuñu jikko joo xam ni moom moo di correction amuñu ko amuñu jikko joo xam ni dinañ ni lii ko ko def da tiit sax balaa nga koy def en tout cas yi loolu moo nekkoon vidéo bi. <laughs> wax nañ lu bëri fii xaw ma saxla la laa waroon wax li ñu waroon wax wax nañ ko bu yàgg répercussions yi ñëw rek King West la woon a yéen wasalaam.